ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur di leen ñu ngi lay fay bu baax a baax di la ziar di la ñaanal bu baax jàmm ak salaam mu mel ni tey da ngaa ñëw ànd yëfu mbër ba nga sant yàlla julli ci yonent bi sant sa ñaari waajur sant sa sëriñ ñan ñan ñoo lay jàppale ci combat bi mais Mbacke maa ngi lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li na a fës ci yéen kaay yi. vendredi 12 février 2021 journal suñu naan xëy ci xëtam bu de Guiers 2 Gouye Gui VIP de Guédiawaye vers gannaaw ba ñu nuyoo internet yëpp ñaanal leen jàmm ak salaam mi ngi noonu noonu la ko suñu làmb waxee tey Balla Gaye 2. Lac de Guiers 2 Gouye ak Abdou Diouf ñeenti ténor yi nga xamante ne bii ñoo nekk fële ci géejawaay mu mel ni ñu ngi jëm ci saison bu tàng jër parce que ku ci nekk am nga adversaire ba nga xam ne macha allah yem nga client ba nga xam ne fa nga koy yàqalee moo lay jaaxal. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la journal sa euh, journal suñu làmb xëy wax ñu ko saison de feu à géejawaay nee na Balla Gaye 2 guy 2 ab Gui Abdou Diouf 4 VIP de Guédiawaye vers une saison de feu nee na Balla Gaye war na jëli revanche ci Bombardier Lac 2 war na venger wu ci Eumeu seen ab Diouf war na daane Gris 2 kii di guy gi moom war ñu ngi koy xaar pour que mu arrêté Reug Reug daal 4 VIP Guédiawaye yi ñu ngi jëm ci saison bu tàng jërëjër. ba léegi Pape Mbaye communicateur traditionnel à Guédiawaye Balla Gaye 2 leader. Pape mbay moom mi nga xamante ne bii communicateur traditionnel la dëgg fële ci kay géejawaay moom nee na làmb ji li coow liy bari bari benn leader moo fi nekk muy Balla Gaye 2 li coow liy bari bari ku nekk xam nga ki la mën ku nekk soo wéetee boo tëdd ak sa ngeeganaay xam nga ki la mën. dëgg la Mbaye Babacar Pape Mbaye nekk communi communicateur traditionnel ñu xam nga également ci làmb ji parfois muy nekk micro central moom nag waxtaan bu yaatu la séq ak journal suñu làmb li mu fa xam ne nee na waaye benn euh, VIP rek la am wala benn leader te géeja te Balla Gaye 2 la wax na également ci Sa Kajoor nee na Sa Kajoor la gisoon ci mbër moo xam ni mënoon na dox ci tànk yi sa Balla Gaye nee na amoon na technique amoon na fulla boo xam ne nii bu continué woon carrière mën na agsi fii Balla Gaye agsi wax na également si diggante guy gi ak Saa Kajoor nee na guy gi fan su dëgg Saa la daf ko bëggoon doon na toog ci cumukaayam te bu daan Saa Kajoor daan daane guy gi kenn daaw ko mën a ndax kontaan wax na également pour ñu redynamiser lamb ji nee na daal euh, grand contre petit rek moom mooy solution pour que lamb ji mën a doxaat. grand contre petit mooy lan Assane. mooy VIP yi ñu nangu daje ñoo xam ne nii ñoom ñoo nekk seen euh, rakk yi. mbër yi nekk ci kaw may loxo ñu nekk ci suuf. dëgg la Babacar noonu la. am na solo ba léegi à 42 ans humilié par Modou Lo de feu contre Lac de Guiers 2 Eumeu Sène en quête d'une la Tay Shinger mi nekk fële ca Tay Shinger. Mhm. gannaaw ba mu jógee ci défaite bu ko méttee métti digganteem ak roi des arènes bii di Modou Lo mu mel ni ma nga dëgmal combat bu nar a ci moom tamit muy digganteem ak Lac de Guiers dëgg la Mbaye Babacar ni ngi ko fàttalikee noonu la ginnaaw bi ko Modou Lo daane loolu mu ngi xewoon ci stade Léopold Sédar Senghor le 28 juillet 2019 léegi nag journal suñu laamu leen Eumeu Sène am na 42 ans et Modou Lo humilié na ko ba pare mu war a jëli benn revanche ci Lac 2 nee na loolu daal bu ñu ko taxañee euh, Eumeu Sène mi ngi ci yoonu. Euh, amaat benn sursaut ci làmb ji maanaam mu jotiwaat li mu pertoon euh, ñëwaat ak doole ci làmb ji ba nga xam ne nii li muy rêvé muy ko nekkaat deuxième roi nekk euh, une deuxième fois roi des arènes mu man ko atteindre. Aziz Ba moom mi nga xamante ne bii moom moo jiite manager yi nekk fële ca Mbour Géej. moom nee na ngir saison bi mucc foofu ci Mbour nu mu mën di def dina organiser huis clos dëgg la Babacar Aziz Ba moom mooy président manager département la Mbour yam moom nag li wax ne ne huis bi comme pandémie bi mu ngi fi moom rek moo fi nekk pour que ñu mën a sauver saison bi nee na daal Covid 19 bi warul rey làmb te nee na aussi il est normal wax na ci également ci écurie yu bëri yu nekk Mbour nee na daal euh, il est normal que Mbour am écurie yu bëri ndax Mbour dëkk bu rëy la te mbër yu bëri nañ tellement que te xajuñ ci benn écurie donc écurie yu bëri ci biir Mbour lu normal la. ba euh, Valdo gannaaw ba ma defee fukki at ak benn ci arène bi am ci benn défaite rek macha allah di mbër ma nga xamante ne bii mbër mu ñëpp jara bàyyi xel la nekk fële ca écrit bul faale mu mel ni mu ngi wonewaat boppam bu baax a baax ci làmb ji. dëgg la mbay Babacar Valdo nekk écurie bul faale journal suñu làmb nee ne tegale ne 11 ans yoo xam ne nii benn défaite rek la ci am la ñëwaat na ci palmarès bu Valdo également nee Valdo am na vi victoire yoo xam ne nii daf ko tegale nee daal Garga 2 rek moom moo jot a daane Valdo moomu te mi ngi ko daane woon le 13 mai 2016. ba léegi espoir la ñu desatee mu mel ni Boy Melax moom mooy doomu Mouhamed Ali moom nee na li mu bëgg fi papaam tegoon tànkam mu teg fa tànkam wala mu romb ko ndax ni koy waxee. doomi mbër jàngil bëre ndax yàgg-yàgg des na la mës a ñam dëgg la gis naan Balla Gaye da nekk doomu bu Double Less gis naan Ama Baldé nekk doomu Falaye Baldé kii di Boy Malx également doomu Mohamed Ali la moom nag euh, journal suñu làmb nee ne dafa war a euh, poursuivre héritage papaam bii di Mohamed Ali nee na nag booy melax bi am na gabari am na force naturelle am na talent am na technique te am nañ yaakaar ne war na topp ci tànki papaam. kon kon kon mën nañu wax ne li ñuy li ñuy wut ci mbër lu ci bëri mi ngi mi ngi ci moom. mi ngi ci moom te gars am na euh, yaakaar trop ci moom. ba léegi ah Yerwago production en Gambie le 6 le 5 mars incha allah. Yarwago production di label ba nga xamante ne bii dañuy dañuy yëngu ci làmb di tëgg di organiser ay làmb ñoom ña nga jëm fële ca Gambia incha allah bu ci yàlla àndee le 5 mars ak le 6 mars gannaaw ba Sénégal organiser wul ñoom ña nga fële ca Gambie ñoom tamit. dëgg la Mbaye Babacar Yarwago production ni nga ko waxee benn label la bu yëngatu ci lutte simple ñoom nag ñu ngi jëm Gambie dëgmal Gambie ñu ngi koy defee le 5 ak le 6 mai wala mars bii di ñëw. que am da laay ñoom nag leen fa bëgg a miser moom mooy un million trois cent mille samedi lay commencé samedi le cinq ñu ngi miser trois cent mille pour euh, poids léger yi euh, le lendemain du dimanche 6 euh, mars ngi teg million pour poids lourds yi pour poids lourds yi am na solo mu mel ni promoteur yaa ngay convoité fii ca Gambie comme Sénégal moom lamb daa tapatéem bi Mbaye Babacar mu ngi noonu Konya mène une vie de pacha aux États-Unis Koña 2 nekk la ci États-Unis mën nañu wax ne ma foofa am na fa soxna euh, commencé fonde li nga xamante ne bii mooy famille. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la Koña 2 ñu xamoon ko mu nekkoon mbër mu am taxawaay ci làmb ji nekkoon écurie Abim Ndiaye journal suñu làmb nag nee na Koña 2 mène une vie de pacha aux États-Unis maanaam daal am na takk na fa jabar am na fa doom te mi ngi leen di toppatoo comme euh, ni ko papa war a toppatoo ay njabootam. nee na nag moom avant muy dem États-Unis ba mu fa defee ay at at def na fa léegi ay at waaye avant muy dem amu jotoon na bëre 14 combats am na fa 10 victoires 4 défaites. ca roi des arènes Modou Lo lañ jëm pour sauver sa couronne Modou Lo sa défense avec le coach Diabane. moom mi nga xamante ne bii moom moo gàlloo euh, ndombo tànku roi des arènes làmb ji. Mhm. ma nga gis nañ ko mu nekk ak ki nga xam ne moom mooy coach sam di coach Diabane lépp nag jëm ci waajal kombaam ak Ama Baldé. ni nga ko waxee noonu la Mbaye Babacar Modou Lo ñëpp xam ko mu nekk actuellement le roi des arènes ginnaaw bi mu daanee Eumeu Sène le 28 juillet ci stade Léopold Sédar Senghor euh, journal suñu làmb nag nee na Modou sa défense avec le coach su Jamo moom daal benn coach su la recruté mi ngi mi ngi takku mi ngi liggéey mi ngi entrainement bu baax a baax a baax loolu lépp pour mën a jàmmaarloog Ama Baldé ci seen combat royal bii di ñëw. dañuy dem ci journal record Jules Baldé donne rendez-vous à l'arène Jules Balde ñëpp xam na ne mooy magu sëllu bu ndaw bii di Ama Balde nee na Ama Balde heure waxam léegi mu jot te bu wax bu jotee rek bu waxee ñëpp daañu ko dégg ndax keroog bi ñu demee foofu ci wax waxloo moom wax loo nañ ko ba ba ba sonn ci combat bi. mais nee na daal wax jotagul. bu wax jotee rek danañ wax ñoom. ni nga ko waxee noonu la Babacar lu tax mu wax ji nag mu wax li mooy que ne mercredi journaliste dañu demoon foofu ci Pikine pour xaar Ama Balde mais finalement Ama Balde looloo tax Jules ne. Ama Baldé heure moo jotagut heure am bu jotee rek dina dina génn wax ak journaliste yi wax ak euh, amateurs yi wax ak fansam yi euh, nee na mi ngi ci ay entraînement am bu heure jotee rek dina génn wax ak nit ñi. mais yàgg yàgg dina génn nag. dana génn loolu moom c'est c'est obligatoire. ndax dafa lekk avance. faw mu faw mu fay. ñun lañ jëm 27 victoires 38 défaites en 5 saisons Double Less et mu mel ni écrit Double Less journal bi di record dañoo ñëwal ci seen bilan ci juróomi at yi ñu jàll ñu am ci li nga xam ne moom mooy ñaar fukki victoire ñaar fukki ndam ak juróom-ñaar wante liñ ci am ci ay défaite toll na ci fanweeri défaite ak juróom-ñett mu mel ni ñoom seen bilan bi xaw na gàllu góose dëgg la Mbaye Babacar euh, journal Record comme ni mu ko tàmm di defee tey mu dikk def bilan écurie Double Less moom nag li mu wax mooy ne Double Less ak Sa Thiès ñi ngi agoniser agoniser moom mooy ñi ngi sukuraat seen affaire doxul dara nee ne euh, ñoom ñi ngi jot am ci cinq dernières saisons yi passé 66 combats am nañ ci 27 euh, victoires 38 défaites nee na ci 66 combats yooyu am na ci 40 pour cent de réussite 13 combats par saison la ñuy def nee na Sa Thiès nag moom. en chute libre la nekk ndax euh, cinq saisons yooyu am na ci trois combats deux victoires une défaite jaajëfal waaw loolu moo xanaa jaajëfal bu baax a baax ñëpp ñu ñu toppoon ci euh, Leewtoo TV di jaajëfal waa Jurbel sama dëkk wante di jaajëfal bu baax a baax sama xarit sama doom dey Adama Diagne Diagne ñaar borom sàkkal yàlla bu jekk bi moo jaar fii ci tiss bi wante ki ko ñëw mooy Modou Fall waa centre de couture soppee Serigne Mor Thiané Sarr Serigne Jojo borom Ceeskaay bu benn dëkk ñaari gaar Modou jaajëf Adama Diagne jaajëf dig daje incha suba ak jàmm ci beneen revue de l'arène Euh, Ndeye Mbacke comme d'habitude di la fay di la remercier comme d'habitude di remercier waa Linguère bu baax a baax a baax di jox euh, dig daje internet Leewtoo TV ba suba ak jàmm. di leen jaajëfalaat bu baax internetu Leewtoo TV ci xaarandi di mu ngi leen di jërëjëf di jaajëfal équipe technique Leewtoo TV yëpp Mansour ci xarala gi Ousmane Yacine dégg naa ñëpp di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen revue.